kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ñu ngi war a jël ay kon trois bi ci suratul maida ñu ngi war a jël kon ci suñu borom di waxee ni xurrimat alaykum almaytatu wa dam mbokk yi ñu ngi yeesalaat sant suñu borom jalla wa ala mi ñu wërsëgal ñu dajewaat ci ab néegam ci suñu fukkiilu daje ak ñaar ci weer wu màgg wi di chehru ramadan ci 1444 suñu borom subhanahu wa taala dëppale ñu ci la nga xamee ne nii mooy tiim ab téeréem di ko jàng ak la nga xam ni digle na ko ci ay ngëneel yonentam bayit sallallahu alayhi wa sallam waxoon ko ci ay ngëneel kon ñu ngi ñaan borom bi rek gëneel yooyu yal na suñu borom yàlla jagleel ñu ko ak mboolem ña koy nar a déglu fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ca fayal ñu ñi nga xam ni ñoo koy toxal mu jëm ci ñoom kon incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوزة والمنخلقة والموقوزة والمتردية والمنخلقة النطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الله غفور رحيم بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ne xurrimat alaykum almayta araaman nañ ci yéen lii di médd waddamu araamal nañ ci yéen deret jay tuuroo ca la ñuy rendi wa laxmu xinziir araamal nañ ci yéen yàpp mbam xoox wa ma uhilla li gayrillahi bi araamal nañ ci yéen lépp loo xam ne dañ caa yëkkati tudd ca leneen lu dul yàlla wal munxaniqa bépp bayuma boo xam ne buum moo ko xot ba mu dee wal mawquuza bépp bàyyima boo xam ni dafa am luñ ko dóor mu daldi dee wal mutaraddiya bépp bàyyima boo xam ni daa jóge ca kaw daanu ci suuf looloo ko rey wan natiixa bépp bàyyima boo xam ni dañ koo jam loolu mooy la nga xam ne nii moo ko rey rawatina bu ñuy mbëkkante seen biir wa ma akala sabu ak la nga xam ne da koo lekk njaa àlliya illa ma zakaytum lu dul loo xam ne sellal ngeen ko avant ruux ngay génn ngeen rendi ko wa ma zubiha ala nusub ak lépp lu ñu rendi ca xërëm ya wa an tastaqsimu bil azlam ak ngeen di sàkku séddali ko ca la nga xam ne nii mooy bant ya ñuy teg ci xërëm ya mu leen di won lak ngeen lan ngeen war a def zalikum fis loolu day nekk na génnub topp al yawma ya'isa allazina kafaru min diinikum gis na ki tey day naagu na ay amatul yaakaar yéeféer yi ci seen diine jiine dañ ko mën a fayeti fala taxshawhum waxshawun bu leen ngeen ragal na ngeen ma ragal man rek al yawma akmaltu lakum diinakum gis na ki tey day matal naa ñeel leen seen diine wa atmamtu alaykum nicmati mottali naa samay xéewal ci yéen wa raditu lakum al islaama diina gërëm naa lislaam nekk seen diine fa man uturra fi maxmasa koo xam ne daa loru ci ab xiif gayra mutajaanifin li ism lu bokkul ak di jeng di jëm ci bakkaar fa inna allaha gafurur rahim sa borom yàlla day ku jéggalaate la ku yërëmaate la mi ngi noonu mbokk suñu boroom jalla wa ala moom moo ni moom mooy araamal ci ñun lu ko neex di daganal ci ñun lu ko neex fa lillahi alhamd la nga xam ne da koy araamal ci ñun mooy loo xam ne daf ñuy lor yuharrimu alaykum alxaba'is lu ñuy lor rek la moo tax suñu aay bi ñu tiim suñu borom indi ci fukki mbir yoo xam ne nee na bu leen ko laal te loolu imma dañuy lor ci suñu wàllu jëm wala mu ñuy lor ci suñu wàllu diine la ca jiitu mooy medd medd mooy lépp loo xam ne deewul ci deeb sharia na doon dañoo xëy fekk dee na loolu dañuy gis ni day aram ñu lekk ko comme kii nga xam ne nii yëpp dafa ñëwoon jël masalan ak xaram wala ginaaram fekk ndox mu tàng jër mu naq ko ca ba mu dee loolu lépp dañ koy tudde medd a mooy medd ci gàttal lépp loo xam ne deewul ci dee jo sharia nangoo ñu reye ca la ñu war a lekk allahuma suñu borom yàlla subhanahu wa taala génne na ca ñaar bi jëkk mooy lu dee géej suñu borom mu ne uhilla lakum taamul bahri no saydul bahri wa taamuhu daganal nañ ci yéen la ñu rëbbe ci géej ak ñamam ibn abbas nee na saydul bahr mooy la nga napp génne ko taamuhu mooy gén yi nga fa fekk ñu dee dagan na nga lekk ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu it dañuy tuddee aljaraat muy njéeréer ya ak soccer ya donte ne ab sénégalais moom kenn du ko wax loolu sénégalais xamul lekk loolu waaye boo demante Arabie saoudite am na marché njéeréer marché yoo xam ne njéeréer rek lañ koy jaay gars yi dem di jënd seen mbuus buñ demee di ko saaf comme gerte caaf gis ngeen ala kulli xaal côté Niger ak yooyu yëpp it da ngay gis ne ñoom dañ koy lekk loolu nag même bu deeyee daggan na nga jël ko lekk fekkoon nga njéeréer yi dee fii boo mënee buub buub dem yaa xam dana daggan nga lekk ko gannaaw loolu li nga xam ne borom bi mun a ab damm damm boobu feneen ma ngi ko fay détaillé mooy damman masfuuxa mooy deret bu ñu tuur yaa ngi rendi la ngay rendi deret bay tuuroo jóge ca baatu la ngay rendi deret boobu xaraam nag ñu koy lekk donte ne ne arab yi dañ ko daan lekk boo demoon tey ci nasaraan yi seen mbaam xuux yooyu ñuy rendi dañuy lekk deret boobu seen jambon yooyu waaye mbokk deret boobu fa lillahi alhamdu gis nañ ne la cay nekk ci ay bactéries ay microbes yu lor doomu aadama kenn xamul nu mu toll moo tax suñu borom araamal ko ci ñun amma deret di nekk ci biir yàpp yi deret jooju loolu moom araamul doomu aadama mën na ko lekk ñu ngi noonu gannaaw ba yàpp mbaam xuux doonte ne yàpp mbaam xuux da yóbbaale graisse am yóbbaale léppam allahuma soo demoon tey en Occident maadaama ñoom xaraamul la ñu mbaam xuux lu bëri ci sunu gâteau yi ñuy indi fii di ko jox sunu xale yi ak produit yu bëri xapta da ngay gis ne dañ cee def graisse mbaam xuux loolu nag bépp jullit boo xam ne xam na ko wuru ko lekk lépp loo xam ne xam nga ne lii dañ caa def graisse mbaam xuux loolu wuruloo ko lekk ñaareel bi mooy ngi noonu ñeenteel bi lii nga xam ne nag la gileem la xar la waaye waa ji bi mu koy rendi daa ñëw ne barke nangam tudd keneen ku dul yàlla te loolu mbokk képp kuy rendi tudd beneen tur bu dul turu yàlla loolu kenn waru ko lekk mi ngi noonu kenn waru ko lekk dinaa gis ko rendee barke suñ diw ci suñu Sénégalais yi loolu mbokk musiba la suñu borom yàlla rek moo moom moo bind ciw turam rek la ñu war a génnee ruux pour mu dagan juróomeel bi mooy loo xam ne jëf ci bon la arab yi daanañ ko def gisam xar wala gis sa jileem nga daal di jël buum takk ci baat bi ba mu dëgër këŋ nga bàyyi soo xëyee fekk mu ne jàng-jàng dee na gis ngeen wala bu doonte ne yow jubluwoo ci loolu waaye fa nga koy yeew daa laxasug buum ga ca baat ba te loolu bëri naa am ci ay xar nga xëy fekke dee na lu mel noonu xaram nañu koy lekk loo xam ni dañ koo assommé dóor ko xeer wala dóor ko yet loo xam ni lu diis la mu dee loolu dagganul ñu koy lekk allahuma lu dul borom xam-xam yi génn nañ ci li nga xam ne mooy fetal bu dee nii yow mi rëbb da nga bismillah dóor balu fetal bal bi dem dóor dal ko bëtt ko loole da ngay gis ne daggan nañu lekk ko mi ngi noonu li nga xam ne daa jóge ca kaw montagne ba daaw xar la bëy la lu mu mën a doon kenn du ko lekk li daanu ci biir teen ba kenn du ko lekk ndax naka rey mooy choc boobu nga xam ne moom la def gannaaw ba la nga xamee ni nii dañoo ñëw fekk ko jam ko dañ koo jam xeej wala dañ koo jam lu mu mën a doon loolee day xaraama lekk xanaa lu dul loo xamee ni ak rëbb la nga xam ne mënoo ko jàpp nga wax bismillah sànni ko sab xeej waaye tey ki kii moon am xaram ñëw jël xeej bi jam jam jam ba xar xar mi dee dañ naan loolu kenn du ko lekk bari na it ay nag yu mbëkkante seen bopp mën naa juyoo benn nag ba butti moroom ja ñu ñëw fekk dee na loolu kenn du ko lekk gannaaw ba it lépp loo xam ne dañoo fekk ci àll njaa àll moo ko rey gaynde segg bukki lu mu mën a doon ngeen fekk rey na ko ba ba ba ca kooku kenn yónniwu ko bokkul ak yi ñu tàggat loolu it kenn du ko lekk borom bi nag yii mu tudd yépp di juróom-ñetti mbir mu ne xanaa illa ma zakaytum lu dul la ngeen sellal tey jii gis nañu la nga xamee ne nii mooy ca génn mooy medd medd moom kenn du ko sellal xar mi nga fekk mu medd ndax ren di ko day tax mu baax tontu li mooy déedéet mbaam xoox ndax ren di ko dana tax a baax tontu li mooy déedéet la ñu tuddul turu yàlla it ren di ko moom loolu taxul ñuy wax am maa ci fekkoon am xaram laxasu na laxasu na bi mu yewwoo mi ngi fekk xar maa ngi tëdd léeg-léeg mu yëkk ci ab tànk wala loxo mais mi ngi jëm ci dee waaye deewagul nga daal di koy rendi su boobaa loolu dagan naa leen même borom xam-xamu caamin yi nee na bu dee da ngaa ñëw fekk mu tëdd dara yëngatuwul waaye bi nga rendee deret bu xonq bu tàng moo génn su boobaa dagan naa leen waaye bu dee ba nga rendee deret génnul wala ba nga rendee lu ñuul moo génn wala deret bu sedd moo génn kon dañuy wan ne ne yow bi ngay rendi fekk dee na waaye daal bu dee bi nga rendi gis ne deret bi wala ngànda doon deret bu xonq bu tàng même boo fekkul mu yëngu dañu naan choc bi moo tax waaye deewagul mën naa jóge ci kaw daanu asumé wu fekk deewul kooku boo ko rendee baax na la nga xam ne it dañ koo dóor ab poids loolu lañ cey wax li jóge ci kaw daanu ci suuf loolu lañ cey wax li ñu jëm loolu lañ cey wax bu nee daal wóor na la ne yow li ngay ñëw di ko rendi deret ja tuuru na deret ja gis nga ne ju tàng la ju xonq la loolu yi dëggan naa leen moom la ñuy wax it la gay daga fat doon wala bukki ba wala lu mu mën a doon yow nga ñëw rendi ko suñu borom yi génn ci la nga xam ne dañ koo rendi ci xërëm ba même bu waajee xëy bismillah aka bëri ay jullit tey yoo xam ne bu ñu rendi di jox bismillah naam waaye dañuy dem ci xërëm bi di reyal xërëm bi nag bu ñuul bi béy wu ñuul wi ganaaru tiir gi di ko reyal xàmb bi même bu waxee bismillah kenn waru ko def mi ngi noonu loolu suñu borom it dolli ci loo xam ne lu xaram la ñu koy jëfee mooy arab yi dañ daan dem ci xërëm yi bàyyi fa benn mbuus mbuus bi ñu def ci ñetti bant bii mooy defal bii bul def bii da ngay gis ne daanaka ñoo yem su ko defee suñ bëggaan di tukki wala bëgg a takk jabar wala bëgg a génn xeexi fokk ñu ñëw yëngal ba gis ne xërëm bi nee na leen lii baax na ñu doog a dem léegi-léegi mën ngaa ñëw masalan am soxna soo nopp lool nga yëngal génne bant bant mën a baaxul de nga dem uti benn xar rendil ko yëngal baaxul de nga dem indi nag rendil ko yëngal ba baa ngay génn baax na nga doog a nga doog a dem waaw yàlla xërëm bi nee na baaxul mbokk loolu mooy ak seet seet googu nag ni ko suñu borom araamale ci aslam yooyu noonu la ko araamale ci lépp am na koo xam ne lu ko jaaxal mu dem seeti gisaane kat am na koo xam ne lu ko jaaxal mu dem ci borom géndal ga am na koo xam ne lu ko jaaxal mu dem ci borom fettaaw ba malheureusement am na ñoo xam ne nii la ñuy seeti mooy téere bi yàlla bi da ngay ñëw wax ko sa soxla mu ibbi alquran ni la tegal nga teg sa loxo ci benn aaya mu ne ah mbir bi day nangam ak nangam la noonu la ñuy def moo gën a xaram ñëpp ñoom waaw ñoo gën a xaram ñëpp ñoom ala kulli xaal bu dee suñu ndaw ñi lan la ñuy seete mooy horoscope wa ma adraka mal horoscope horoscope mbokk nee na ñooy la nga xam ne mooy nit ñi seen juddu dafay tombeek biddiwu asamaan yi ko defee ñu ne fukki biddiw la ak ñaar la xam ne ay bélier taureau balance capricorne wax seen wax yooyu dañu naan la yow mi nga xam ne da ngaa judd masalan 31 mars ba ba nga yegg ci 30 juin bisub tey bii moom bul jël benn décision décision boo jël du baax kee nga xam ne daa judd juin jëm kee ñu ne ko tey moom fexeel ba bul tukki tukki boo tukki ba du baax kee ñu ne ko xamal ne dana la am lu la bett lool tiital la waaye nag na sa xel lal mbokk loolu am na ñoo xam ne bu ñuy jënd journal horoscope muy gën a tax ñu jënd ko waaye loolu dafa xaram jullit de base wuti loolu loolu ay kàcc la ay naxaate la da ngay gis ñaari seex yu bokk bis bu ñu judd ci dara seen programme dara bokku ci am de gis ki am ki ñàkk ki baax ki bon ki wér ki wére ji ilaaxiri kon nan la ñu mën a jëlee ñu bokk trois mois plein ñu ku nekk ñu bëgg laa waxal ne la seen programme nii la ala kulli xaal alhamdulilah islam lum ñu araamal rek heure bu la diine ne bul jaar fee rek dana la jaaral fee loolu la diine tere rek xamal ne ak yombal ma nga ca wet ga inna ma al usri yusra loolu tax borom bi subhanahu wa taala jàngal ñu ci lammin yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne yaa ngi ca bëgg a dugg di ca sikk sàkka defal istixaara istixaara mooy la ngay dugg da ci sikk sàkka bokkul ak li ñuy tuddee salaatul xaaja salaatul xaaja moom mbir mi dalaa leer mooy lii moom bëgg nga ko def jàpp nga ne baax na da ngay julli ñaan yàlla mu yombalal na ko barkeelal la ko amma istixaara mooy soxna si day wax nañ la ay mbiram mais kii ndax baax na ma takk ko wala déet tukki bii ñu may proposé examen bii may may bëgg a def démission bi may bëgg a def toxu gi may bëgg a def ila axiri yaa ngi ci sikk sàkk baax na ak baaxul yeneen ci bari sam ne da ngay julli ñaari rakka soo jullee ñaari rakka ba sëlmal nga ne yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi di la ñaan ci sa ngëneel yi di la dogalloo ci sa kattan gi yàlla yaa xam man xawma yaa man man mënuma yow yaay ki xam kumpa su dee ne tukki bi ma bëgg a tukki dafa baax ci sama diini baax ci sama adduna tey ak ëllëg yàlla nag ma ko yombalal barkeelal ma ko waaye bu dee ne yàlla tukki bii day baaxul ci sama diini baaxul ci sama adduna nga la waay yàlla soril ko sorilal ma ko génn ci sama xel te dogalal ma lu gën lii loolu ngay wax ci tukki bi ngay wax ci soxna si moom nga wax ci oto bi nga bëgg a jënd moom nga wax ci kër gi nga bëgg a tuxu ila axiri te loolu mbokk mi ngi noonu amul joxe dara ku lay fanaanoo ku lay yendoo amul soo demee ci suñu tariyaax yi ñoom dañuy def istixaare istixaare bi Sénégal yi xam bokkul bi ma leen wax istixaare bi Sénégal yi xam mooy sëriñu tariyaax yi def listixaar da ngay ñëw ci Cheikh Ousmane wax ko sa problème yëkkati 100 francs jox ko xam naa léegi 10 000 la sax waaye man ba ñuy xale 100 francs la woon ba joxe 100 francs bu ko defee mu fanaanoo la soo xëyee nag ñëw mu naa digg li ma gis sa mbir mooy nangam ak i nangam ak i nangam istixaare boobu islam xamu ko istixaare bi islam xam mooy bi ma leen wax ñaari rakaa ngay julli yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi di la dogalloo ci sa kattan bi di la ñaan ci say ngëneel yow yaa xam man xawuma yaa man man mënuma yow yaa xam kumpa su dee ne soxna sii day baax na ci sama diine baax ci sama adduna yombalal ma ko barkeelal ma ko bu baaxul sama diine baaxul sama adduna soril ma ko génn ci sama xel te wutal ma lu ko gën gaa yi di yomb la waay su ko defee nag nga doyloo sa borom def say effort su yàlla defee mbir bi yomb nga xam ni lii yàlla ko dogal ci incha allah yàlla dana ko bàkka dana ko barkeel soo lambee lamb mu dëgër sa xel dal nga tranquille ah yàlla daa dogal baaxul ci man ak loo ci mën a am ci intérêt da ngay am xel mu dal mais comme tànn loo woon naa yàlla yàlla indi gàllankoor yàlla ngi may waajal lu gën loolu te incha allah boo ca dogoo yàlla jox lu la gën loolu borom boobu subhanahu wa taala nag ni kon lii de mooy la nga xam ne nii moom la leen yàlla araamal borom bi nag subhanahu wa taala ne xam leen ne yéeféer yi day la ñu doon mébét te mooy faagaagal diine ji mébétoon nañ ko ca Badr sottiwul ñu mébét ko ca Uhud sottiwul ñu mébét ko keroog ca Ahzab sottiwul tey nag yàlla wëlbati ne mbir yi yonent bi alayhi salaam gàññe ne ay noonam ubbi na Makka capital ba te la ko suñu borom wàcceel aaya yi ca at ma ca at ba mu doon tàggatool ne tey jii day yéefar yi xam nañu mënatuñoo fay seen diine ci waaye nag suñu borom it nee na wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataaw xeex bi moom duñ ko bàyyi doonte ne xam nañ ne duñ ko gañe waaye nag duñ deñ di leen xeex loolu jullit war koo xam bu baax suñu borom yàlla ne bu leen leen ragal na ngeen ma ragal man rek ay yéen mbooloo jullit ñi bu leen ragal kenn ku dul man mu ne na gis ni que tey matal naa seen diine ji mottali sama xéewal ci yéen na am mbokk keroog la yàlla wàcce lay suñu baasu diine la nga xam ne nii daanaka la ca teg tege yonente bi alei salaam ñetti weer la ca teg faatu matul sax ñetti weer la ca teg faatu lu niiw a niiw a niiw moo wàccaat ci ay aayaat gannaaw loolu sallallahu alayhi wa sallam diine ji it borom bi mu ne matal naa ko ñeel leen mbokk muy wane ne yow julit ngallawaayi del bàkkoo sa diine yow ndawal julit da ngay fier ci sa diine foo dem nga wane ko fa marché mbàqo rek maison blanche nga yemale suñu borom yàlla mu ne seen diine la gërëm naa ko ñeel leen akmaltu lakum raditu lakum muy seen diine di diine islam borom bi mu ne def motal naa ko mboole mi xiiwal yu yàlla mas a yónni ci diine bu mu mën a doon yàlla nga ko mottalee ci diine lislaam mboolem jukko yu rafet yu mas a am ci diine yi jiitu woon yàlla nga ko mottalee ci diine lislaam muy diine bi gën a mat ci diine yi gërëm naa lislaam muy seen diine lu mel nii jàpp naa yéen ñëpp yàgg ngeen dégg benn yahud bu ñëwoon ci Omar ibn Khattab da ko am na aaya bu ngeen di jàng seen téere bu doon ñun ci yahud yi la wàcc dañ koy def bi su xeet Omar na ko ban aaya la mu wax ko aaya bi Omar na ko xam naa kañ la wàcc xam naa fan la wàcc mi ngi wàcc bisu arafa ma nga wàccee ca makka ci bisu aljuma te ñun aljuma suñu feet la arafa suñu feet la kon jullit ni ñu ngi feetu aaya bi waaye nañu koy feetoo du paase naka yàlla santaane ajjuma nañuy koy feetoo yéen ñëpp xam ngeen ko arafa dañ koy feetoo yéen ñëpp xam ngeen ko moom mooy woor ko am na ñoo xam ne dañuy layal màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddi juddoom ñu ni loolee omor ne ñun ñu ngi feetu al yawma akmaltu lakum diinakum ku mën a feetu al yawma akmaltu lakum diinakum mën a feetu juddug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu d'accord nañ ak ak ñoom d'accord nañ ak ñoom waaye feet googu nuñ koy defee mis gaa yi misu Arafat nuñ koy feetoo da dañ koy woor kon ah kay nañ màggal juddug yonent bi alayhi salaam ñun ñëpp nañ ko woor ndax loolu loolu loolu loolu ñoom dañ ko def duñ ko def ala kulli xaal ñu xam ne yow julit juddug yonent bi alayhi salaam kenn du ko woor la ñuy woor mooy bisub juddoom ci semaine bi mais pas bisu juddoom ci at mi kenn du jàpp ne masalan tey de fukki fan ak ñaar ci rabiul awwal donte ne ni la ëpp ci nit ñi loolu lañ jàpp waaye amul tegtal ci loolu fukki wax wax wax nañ ko ci yonent bi kañ la judd waaye même bu doon leer na ne ni fukki fan ak ñaar la gudd ci rabiul awwal jullit amul droit jël bis boobu di ko woor amaa nag bis bi ci semaine bi muy lundi yonent bi alayhi salaam daana wax ne bañ ko laajee lu tax nga bëri di woor lundi mu ne lundi ci laa judd ci la ñu wàcc ci man alquran te it dañ ciy yëkkati ji fi jaam yi loolee kon ñu bàyyi ko xel bu baax borom bi wax nañu ne lii la araamal di fukki mbir mu ne nag képp koo xam ne dafa loru ci ab xiif moom jéng bàkkaar yóbbuwu ko su boobaa yàlla jéggal na ko lam ca lekk waa ji doon tukki ci àll amul lu mu lekk ba mujj mu dajeeg benn kéwél gu dee mën na caa dagg lekk te ba yëg ne ab tiifam deñ na waaye du lekk bu biiram fees de lekk ba yëg ni xiifam deñ na max masa loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ñu ngi noonu lekk ba yëg ni sa xiif dem na fekk ne yow bàkkaar yóbbuwu la ca ki nga xam ne yettee ji masaloon dañ ko tëjoon ci ab benn prison lu ñu ko fay jox yàpp mbaam xoox kese lañ ko fay jox nu muy def mooy heure bu ñëwee dana ci lekk loo xam ne nii dana ko tey de loolu la ñuy wax ci wàllu googee amma jullit du amul droit di lekk ci lii lenn fekkul ne ngant moo tax bu ngant te bu ngant taxul rek araam na ni ko sangara araamay loolu ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne dama fàttali suñu benn mbokk mbeng di daan ànd ak ñun fii ci tafsir bi mu ne dafa ànd ak benn xaritam ñu romb xaw ma ban quartier la ma waxate sax ci Dakar nee na bi ñu ñëwee fekk gaa yi ngi teg benn bâche mu ngi ñëw fekk gaa yi teg plate yi yàpp yu duuf ya di di xéewal la daal di ñëw foofu commencé lekk nee na bi ñu lekk bi sama xarit bi ne waa ji ah waa yéen seen yàpp yu moom moom duuf na ci neex de waa ji na ko yàpp mbaam koo ko mel noonu nee na man ma daal di jóg mu ne ah man comme commencé na dafa yeggale rek waaye mbokk loolu moom njuum te la mooy la ñu lekkoon avant ñuy xam mbaam xuux la ñu lekk loolu moom yàlla baal na leen waaye une fois nga xam ne lii mbaam xuux la xaaraam na nga lekkati ci ab dagg mi ngi moonu yàlla na yàlla jéggal ñu yërëm ñu Cheikh Ousmane
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين مسلمين ولا متخذين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne yasalunaka ma za uhilla lahu- uhilla lahum ñi ngi lay laaj waaw ñoom lan lañu daganal ñel leen qul uhilla lakum tayibat neel daganal nañ ñel leen lépp lu teey wa ma allamtum min aljawarixi mukallibin ak la nga xamee ni nii yéena li ko jàngale te la nga xam ne day nekk di aju faggu mukallibiina nga xam ne dañ leen a jàngal nu- naxat yey def ay nañuy rëbbe tuallimuunahunna mimma allamakumullah yéena ngi leen di jàngal ca la leen yàlla jàngal fa kulu mimma amsakna alaykum e waay lekk leen ca lañ jàpp ñeel leen waskuru smallahi alayhi te ngeen tuddu turu yàlla ca loole wattaqullah e way ragaleen yàlla inna allaha sari'ul xisaab yàlla day ku gaaw la ci lu muy réglé ay jaamam al yawma uhilla lakum tayibat bis na ki tey day daganal nañ ñeel leen yu teey yi wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum ñamu ña nga xam ne dañoo jotoon téere yi day ah dagan nañ ñeel leen wa taamukum xillun la lahum yéen it seen ñam dagan na ngeen may leen ca dagan na ñeel leen ñoom it wal muhsanaat ak ña nga xam ne dañoo fegu min al muminat ca jigéen ña gëm yàlla wal muhsanaat ak ña nga xam ne dañoo fegu min allazina utul kitaab ca ña nga xam ne dañoo jotoon téere min qablikum te li leen jiitu ida aataytumuhunna ujurahun su dee ne kay jox ngeen leen la nga xam ne mooy seeni fay ñu ngi noonu muhsinin yéen ngeen doon aji fegu yéen góor ñi gayra musaafihin bañ a doon ñoo xam ne dañuy nekk ay njaalookat yu yu- njaalookat yu sax wala mutaxisi axdaan wala ñuy jàpp la nga xam ne mooy ay coro mooy koo xam ne nii da ngay féetewoo ak moom kese mi ay concubine wa man yakfur bil iman koo xam ne nii day daa weddi ci ngëm yàlla faqad habita amalu ku mel noonu day màbb na jëfam wa huwa fi l axirati min alxaasirin te àllaaxira dana bokk ci ña nga xam ne dañoo perte mi ngi noonu bokk suñu boroom am na benn liste bum ñu woon ne ñi lii day araam na ci yéen léegi nag sahaaba yi na ko waaw lan mooy li dagan borom bi subhanahu wa taala ni daganal nañ leen lépp lu teey loolu mbokk boo ko doon lim ay junni junni la lu doomaado mën a lekk ay junni junni la am maalam xaraamal loolu lu mu lim la loolu moo tax ba lépp lu doomu aadama lekk mu teey man koo jëriñ nañu xam ne dagan na ñeel ko loolu it moo tax ba lépp loo xam ne nii gis nañu ni dafay laywu lor ci wàllu wér-gi-yaram dagganul jullit du ko lekk tey jii médecin boo xam lay jabet dëgg nga ñëw mun na la yow da ngay war a da ngay bàyyi sukkar day xaram ci yow nga lekk sukkar kii nga xam ne da ngaa dem ci yow mu ne la kat yow fi nga toll nii la nga xam ne nii am nga ko ci ay feebar ci ay gut nga la waay bàyyi lekk sangam lekk boobu danga ko war a bàyyi ndax loolu nekkatul lu tey lu lay lor la ñu xamit ne kaw suuf lépp loo xam ni suñu borom yàlla tudd ko wala yonent yàlla tudd ko ne dafa xaraam rek dagan na nga lekk loo mën a dajeel ci luy dund loo mën a dajeel ci ñam ci fruit ci lu mën a doon te teg si ñëwul ne dafa xaraam dagan na nga lekk fi yëg yëgoo ne lekk gi daray lor muy contraire u jaamu yàlla bépp façon jaamu yàlla araam na ñu koy jaamoo yàlla lu dul lu texte wane ne nii lañ ko war a jaamoo yàlla loolu it moo tax ba nga la waay li suñu borom ne lañ daganal mooy yu teey waaw gars yi cigarette teey na am teeyul cigarette day jëriñ am day lor loolu ñu bàyyi ci xel bu baax alhamdulilah ci xutba bi ñu fi def yàggul dara donte wax faggu wën yi ak liy lor ba tudd ci cigarette amam suma benn jarbaat nekk imam te yëmbal mooy nee na dafay wax ak waa jàkkaam di leen wax danger cigarette ci jënd gi ak jaay gi mu am benn grossiste bu dëkk foofu mu ne ko ah kon jaay cigarette daa xaraam mu ne ko waaw mu ne ko bis ni ko tey sama bitig yépp kenn dootu jaay cigarette mu ngi noonu yal na yàlla wuutal ko lu gën loolu te sikk amu ci walla waaye dañuy wax borom bitig yi ñu ragal ragal yàlla ragal loo xam ne ni yaa ngi koy jaay bëggoo dox mukk ñëw fekk sa soxna tey cigarette di tux a ba a jàllo a bari a ki kenn ci yéen bëggul dem ba ñëw fekk soxnaam di tux kenn ci yéen bëggul dem ba ñëw fekk doomam di tux kon kay suñu borom mu ne nit ki sa ngëm du mat lu dul li nga bëggal sa bopp bu ngay bëggal keneen te maa ngi lay seedeel ne boo ko bàyyee ci yàlla tax yàlla wutale lu ko gën wërsëg yi ci loxo yàlla la ne wërsëg yi nekkul ci commerce bi yàlla mooy wërsëgal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bari na koo xam ne da ngay gis benn jour rek catastrophe dal ci kawam fekk lu bon lu xaraam la lu mu dugal ci alalam moo ko ko yóbbee loolu ñu bàyyi ci xel borom boobu kon mu ni daganal naa ci yéen it al jawaarix jawaarixi mooy al jaarixa mooy al kaasiba mooy ñoo xam ne mën nañ leen a faggul na doon loolu ab xaj la wala na doon loolu ab eegal la soo demoon ci dëkk arab yi ay faucon yi ak eegal yi dañ leen di tàggat di leen yónni ñu dem jàpp njomboor yeeg yooyu gis ngeen loolu nga xam ne yéene leen tàggat ba ñuy mën a fadd mu kallibiin di fadd comme ne xaj di fadde suñu borom mu ne lu ñu leen jàppal dagal na ngeen lekk ko ndax yéene ngi leen di jàngal li leen yàlla jàngal te nga la waay jullit xamal ni la malaaka yi waxoon mooy valable ci mbooni mi jaami yàlla yi la ilma lana illa ma allamtana et monsieur l'informaticien xamal na yàlla jàngale informatique yàlla jàngal doomu aadama mu xam nu muy assemblée matière première yàlla def ci kaw suuf ba génne ci oto ba dawal ci saxaar ba naawal ci avion yàlla subhanahu wa taala moo jàngal doomu aadama nu muy jëlee matière première yàlla def ci borom ba génne ci portable génne ci ordinateur génne ci la nga xam ne nii mooy ay centre lu mu mën a doon da ngay xam ni lu waay xam yàlla moo ko ko jàngal mi ngi noonu mooy yàlla mi ngi leen jàngal la ngeen leen jàngal kon jàpp leen lekk leen li nga xam ne dañ leen koo jàppal te waa ji yoroon ab xaaj xaajam tey nga daal di koy gis benn rëbb lii dafa nekk ak kéwél la njombar la nga ne xaj bi bismillah wala ne eegil bi bismillah mu dem jàppal la ko dagan na nga lekk ko loo fekk nag mu jàppal ko boppam loolu moom du ko doo ko lekk waaye li ñu jàpp ngeen leen daga na ngeen lekk ko waaye nag foog nga tudd ci turu yàlla foog nga tudd ci turu yàlla boo ko orte bismillah mu dem lu mu jàpp rek même bu ko reyee nga ñëw fekk Medina teewul daga na nga lekk ci yéen loolu mel noonu rek laa la doon wax ci fetal ga mooy booy rëbb boo gisee dara naan bismillah boo dóoree bu daanoo même bu dee daga na nga lekk borom bi subhanahu wa taala nag mu ne ngal la waay ragal leen yàlla ca mbokk lii dafa sensible mooy léeg-léeg doomu aadama bi am loo gis mu jege la lool fekk yàlla dagganalu ko léegi nag loolu ak ragal yàlla ci am da ngeen lim bi gaa yi yëpp ñu ne màggatum law ba dafa yoroon am xaram xëy fekk xar mi dee mu dem ci suñ caam ne ko ah suñ caam musiba am na de mu ne ko la xew sama xar mi lu ma mos a wayaan moom laa ko jëndal am ngooñ ak ndox jox ko sama njaboot gi am ci moom yaakaar lool ma xëy rek fekk mu dee léegi ah loolu doy na waar bu aj jërëjëf xamoon naa ne dag ma ko daganal waaye bokk déedéet wattaqullah yaa ngi dégg lépp loo xam ne nii daganu ah loolu dañ ci bàyyi xel bu baax wallahi da ngay gis ku ma xam lool jege ma lool fan yi rek lu xëy benn xarul laa dun boo xam ne nii sëñ bi cinq cent mille sax bëggu ko te woon nga xëy fekk mu dee yaa ngi dégg ba may demee di ko di ko tuuru ji ñoo xam ne ñoom bokk ñoom ñun diine ñëw ay may ñu ko waaye mu may leen ko ñu dem ñoom lekk donte ne waru leen ko woon a may yaa ngi dégg waaye bokk loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax wattaqullah borom bi mu ne ku gaaw la nu muy xisaabe ay jaam gaaw na ci temps bi te mooy àllaaxira mbokk li ci des bëreetul milliards ya fay daje it yàlla xisaab leen ak xisaab benn jaam la yemale gis ngeen borom bi bàyyi affaire rëbb yi daal di ñëw nag ci jigéen ñi ci lekk lekk biir kër gi daa jone bis ni ki tey daganal nañu leen lépp lu teey comme ni ma la ko waxee lépp loo xam ne doomu aadama soo ko lekkee du la lor te texte ñëwul ne xaraam na lekkal gannaaw ba it lekk ahlul kitaab dagan nañu leen lan mooy lekk ahlul kitaab mooy lu ahlul kitaab rendi loolu mooy seen lekk amma luñ dul rendi loolu lekku du lekku kenn ahlul kitaab bi yoroon dugubam blayem farinam yoroon loo xam ne kenn du ko rendi loolee da ngay gis ne dagan na nga lekk ko amma loo xam ne dañ koy rendi ab chrétien moo ko rendi wala juif moo ko rendi ba mel noonu dagan na nga lekk bu dee ne nag ko ko rendi du chrétien du juif loolu daganul nga di ko lekk lekk yéefar daganul du ko lekk mu des nag problème bu rëy suñu doomi nekk Europe dañu naan rek ay chrétien ñoo fi nekk kon seen lekk dagan na waaye mbokk bi charte la ngay lekk doon lu ñu rendi waaye lu bëri ci ñoom nañuy rey même bu dul jullit moo ko rey daganul nga lekk ko kon naka ab chrétien bi rey nga koy lekk loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax moo tax ba lu bëri ci ñoom dafay station ba am ay place yu bëri yoo xam ne dañ fay rendee rendu sharia ñu bind ci xalaal ñu bind ci xalaal allahuma doonte ne ne bari na ñoo xam ne jàpp nañ ne kat jullit ñi xalaal la ñuy xool kees bi ñu bind bind ca xalaal ba am na ku daan gis ne keesu jën sax ñu bind ca xalaal ci jën moom ajuwul ajuwul xalaal waaw waaye daal ci gàttal mooy lépp loo xam ne chrétien ko rendi dagan nañu lekk ko lépp loo xam ne kenn rendiwu ko dañ koo rey ak nuñ ko mën a reyee te du ak rendi bu ko jullit defee baaxul bu ko chrétien defee baaxul mu ne yéen it seen ñam dagan na ngeen jox leen mooy yaa ngi dëkk ak ay chrétien rendi nga dagan na nga may leen xatta ñu naan tabaski kenn du ko may chrétien teguñu ko ci dalil suñu borom mu ne suñuy ñam dagan nañu leen bu su tabaski la benn kër chrétien mi ngi dëkk ak ñun fukki kër jullit ñu ngi ko wër rey suñu xar lekk ko mayuñu ko ci loolu rafetul mbokk moo tax suñu borom mu ne suñu ñam dagan na nga ñel leen mi ngi noonu lu dul koo xam ne ak noonu daa dox suñu diggante gannaaw loolu muhsanaat minal mu'minaat mbokk muhsanaat wax naa la day firi ñaar mooy day firi gor day firi fegu ci njaaloo te itamit fii it dañ ci jàpp fegu ci njaaloo donte ni jullit am na droit takk ab jaam bu amul pexe takk gor te ragal a njaaloo lii moo tax ñu takk jaam amoo pexe takk gor ragal a njaaloo waaye bu dee loolu am na amoo droit di ko takk amma nag bi yàlla wax fi muhsanaat mooy fegu mbokk jigéenu njaaloo kat boo xam ne tuubul ak njaaloom daganul jullit dem di ko takk même bu dee ni jullit la chrétien boo xamee ne nii araamalul ci bopp njaaloo juif araamalul ci bopp njaaloo araam na yow jullit nga di ko takk fokk chrétien ak juif bi ngay takk dafay gëm ne diineem daa araamal ci moom njaaloo waaye bu dee na loolu araamalu ko ci boppam comme lu bëri tey moo xew en Occident nga xam ne ñoom njaaloo jëndi mburu la ñemele ku mel noonu mbokk dagadul nga di ko takk borom boobu subhanahu wa taala nag ne dañu dagal ngeen leen su dee jox ngeen leen seeni can loolu it mbokk mi wane ni jigéen ku ko takk ci sëy da nga koy jox dara niiw nam bari na amma ñu may li jigéen defoo ci dara loolu mbokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jagoo woon su ko defee yow ci sa wàllu bopp nit kenn du ko may soxna dañ koy jox can loo xam ne daanaka dafa xaw nuroog ak jaay moo tax borom bi tudd ko ajur fay la da ngay fay joxe can pour soxna si doog laa dagal can gi nag mën naa jiitu sëy bi mën naa ànd ak sëy bi mën naa nekk gannaaw sëy bi waaye mën nañ koo may soxna sëy bi wér na waaye can gi mu doon benn lu mu tudd wala loo xam ne ni lu mu jege la loolu am na yeneen détails yu gën a yaatu yooyu ca dar su fiq yi yéen nit ba ngeen demee di takk ngalawaay takk leen fekk muhsinin moo leen ci yóbbu xëyra musaafihin bi ngay takk soxna si takkoo ko ngir xam ko rek fase ko loolu la yonent ba tudde woon ak zawaaqiin ña nga xam ne li leen yóbbu ci soxna mooy soxna si tënna leen ñu ñëw takk ko rek buñ ko xamee seen bànneex jeex na ñu fase mu dem ak bëri góor ñoo xam ne noonu la ñuy njaaloo dañuy ah ñun daal bëgguma caaxaan man daal sëy rek laa bëgg suñ ko mayee soxna si maximum un mois mu fase dem takk keneen kon takk leen ko fekk yéen a ngi ci jublu muhsinin muhsinin fekk seen bopp fekk soxna si it ba mu bañ a njaaloo nga xam ngeen koy dugg ci say ñaar yooyu la ciy jublu fekk boppam fekk soxna si bañ a doon al musaafihin kan mooy musaafihin mooy ki nga xam ne ku mu dajal rek njaaloo moom kan mooy muttaxisi axdaan mooy li ëpp ci nit yi tey du ñu wër di njaaloo waaye da ngay am sab jal boo xam ne yéenay nekk wala moom tey ci chrétiens yi ak ndaw ñi nga xam ne faalewu ñu diine da ngay gis ñoo xam ne couple la ñu doon lii pendant dix ans marié wuñ di ànd fu leen neex dérangé wul nit ñi xam nañ ne marié wuñ loolu la ñuy wax allah dar mbokk loolu aram na góor di ko def aram na jigéen di ko def ki yem ci kenn ci muy njaaloo ak ki nga xam ne guddi gi ne mu changé partenaire ñoo yem ca yàlla njaaloo njaaloo rek loolu dañu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala nag ne ay yéen jigéeni chrétiens yi ay yéen juif chrétiens yi li ma ne sama jaam yi mën nañu leen a takk sa wewu leen de képp ku weddi diine sa jëf màbb na àllaaxira da ngay perte ndax jullit bu takkee jabaru chrétien jabaru chrétien boobee loolu dina ko tax mu sauvé ci wàllu diineem déedéet loolu mbiri àdduna la looloo tax bu chrétien bi deewoon kenn du ko suul sëgu jullit ni bu bu waa ji deewoon chrétien bi du doon bu chrétien bi deewoon waa ji du ko doon relation àdduna daal la yàlla daganal foofu mooy ngeen sëy waaye képp ku weddi diine ak koo mën a sëyal sawara nga jëm moo tax soxna noo sawara la jëm soxna luut sawara la jëm ñu ngi noonu yal na yàlla fekk ñu fekk suñu njaboot te musal ñu ci sawara
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne ya ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ida qumtum ila salaa su ngeen jógee jëm ci julli faghsilu wujuhakum raxas leen seen kanam ya wa aydiyakum ila almarafiq ak seen loxo ya ba ca conca ya wamsaxu bi ru'usikum masaa leen seen bopp ya wa arjulakum ila alka'bayn ca raxas tànk ya ba ca dojor ya wa in kuntum junuban fattaharu su ngeen àndee ak janaba ngallawaay jóg leen ngeen laab te mooy raxas leen seen yaram lépp wa in kuntum marda su dee da ngeen a nekk aji feebar aw ala safar wala ngeen nekk ci tukki aw jaa ahadu minkum min alghaid wala kenn ci yéen jóge ca wanag wa alghaid mooy place xur ya nga xam ne ca la ñu daan génn di ci dem wanag mooy douche rek awal aw lamastum nisa wala ngeen laalanteeg jigéen ya te wàllu sëy falam tajudu maa amuleen ndox mu ngeen jàppe wala sangoo fa tayammamu sayidan tayiba na ngeen tiim ci suuf boo xam ne bu tey la famsahu bi wujuhikum wa aydikum min na ngeen ca masa seen kanam yi ak seen loxo yi te suuf soosee maa yuridu llahu li yajala alaykum min xor yàlla bëggul def ñeel leen benn xat-xat walakin yuridu li yutahirakum yàlla daa bëgg ci laabal leen wala yutimma nicmatahu alaykum mottali ay xéewalam ci yéen laallakum tashkurun ngiree ngeen doon ñuy sant mi ngi noonu bokk suñu boroom gis nañu ne téere aaya yi nga xam ne moom la ñuy jàng mooy aaya yi mujjawaat ci di jàngale diine ci aaya yoo xam ne day gudd bañ commencé wax ba tey ñu ngi ci suñu ñeenteelu aaya borom bi lan lay wax fii e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm su ngeen jógee jëm ci julli mbokk loolu lim ñuy jàngal di gëm yàlla day julli allah waaye fexe leen ba bu leen kenn teqaleel diggante gëm yàlla ak julli di gëm yàlla day julli léegi nag su ngeen jógee jëm ci julli farata la wala naafila la ngal la waay na ngeen jàpp loolee mbokk am na ci yenn borom xam-xam yu xaw a taral jàpp ne ku jóg jëm di julli ji da nga war a jàpp waaye la gën a wér mooy day fekk sa njàpp toj na waaye boo jàppoon fajar kisbar jot na jàpp bi tojul jógal julli tàkkusaan jógal julli boo ta mënee julli gee yaa xam bu doon ngëneel nag li gën mooy waxtu wu ne nga jàppal yonent bi alayhi salaam loolu la doon def ba keroog bi mu ubbee màkk moom waxtu yu bëri yim jàpp ci benn jàpp gaa yi na ko lii daaw ñu def nga di ko daaw ñu gis nga di ko def mu ne waaw waaye lu mën a nekk la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax même bu sa njàpp tojul xamal ne jàpp ci boppam jaamu yàlla la même bu sa njàpp tojul nga jóg jàpp bi jaamu yàlla la yonent bi alayhi salaam nee na kii jóg di jàpp heure bu raxasee kanamam loxoom ay tànkam ay bakkaaram dañuy tuuru dañuy tuuru ba daanaka toq ndox yi mujj a toq ci moom day génne la nga xam ne mooy bakkaaram yépp daana waxit ci jàpp ba pare ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh daañ ko ubbil juróom-ñetti buntu àddina yépp allahuma nag mbokk julit soo déggee ñu ne lii ku ko def dem àjjana day fekk ne defoo contraire ba yóbbu sawara lu gën a bëri yéen ndaw ñi pour ngeen comprendre rek tey jii benn équipe ñi ngi football ñi ngi football premier mi-temps premier benn équipe A dóor 3-0 di ci fa jógale naan moom da gagné na ñoo waay waaw buñ mi-temps ba pare B moom dugal 4 4 but nag nu ñuy def 3 but yooyu nag dana ko jëriñ dara laa du ko jëriñ dara loolee kon moom la ñuy bàyyi xel suñu ne lii ku ko def safara day dem sawara ndax day tax ñu ne diw def na ko ma nga sawara déedéet ndax amul contraire yu ko gën a kawe yu yóbbu àjjana lii ku ko def dem àjjana ndax kon day dem àjjana déedéet ndax amul contraire yu ko gën a garaaw waaye xamal ne foo jàppe ba pare daa di wax loolu ma wax ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul am nga visa duggee juróom-ñetti buntu àjjana yépp yal na yàlla dugal ñu ko loolu mbokk mi ngi noonu suñu borom mu ne bu ngeen jógee raxas jëm ci julli raxas leen seen kanam kanam mooy fi nopp di saxe ba feneen fi nopp di saxe ci largeur fi karaw di saxe ci normal waxuma gaa yi leel fi karaw di saxe ci normal ba suufu sikkim loolu mooy longueur bi nga xam ne loolu mooy kanam na ngeen ko raxas na am gannaaw ba raxas leen seeni loxo ba concali te da ngay raxas lo loxo bi raxas conce bi mu ngi noonu gannaaw ba masaalin seen bopp lan mooy bopp mooy fi karaw yi di saxe ci normal loolu la ñu tuddee bopp mi ngi noonu la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne bopp bi yëpp la ñu war a massa am na ñoo xam ne dañ ne boo massa genn wàll gi rek baax na naam loolu gannaaw ba suñu borom mu ne na ngeen raxas seeni tànk te njàngin boobu moo gën a siiw mooy ardulakum te mooy day wane nañu raxas tànk ya boo demoon lu mel ni waa Chia nag ñoom dañu naan da ngay massa bopp bi massa tànk yi ba nga xamee ne bokk na luy teqale borom xam-xam yi ahlu sunna ak Chia koo gis muy jàpp nga gis ko bi muy jàpp ba yegg si ci tànk yi massa tànk yi xamal ne kooku Chia la kooku chiit la loolu nga bàyyi ci xel bu baax ñoom reconnaître ñu massa ci kaw dal wala massa ci kaw kaw kaw ñoom ci kaw tànk la ñuy massa amma ahlu sunna ñoom dañ ne kaw tànk kenn du ko massa dañ koy raxas dafa am xadis yu wér yeneen ci bi alei salatu wasalaam abdullah ibn omar ne ne nekkoon nañ ci benn tukki mu gis waxtu wi jot gaa yi di profitoo jàpp mi yeneen ci bi ne leen waylun lil aqaabi min annar alkaa nga ñeel na ñi dul raxas seen pistel seen gannaaw talon yi duñ ko raxas ci sawara te li ñu wane ci yeneen ci bi alei salaam boole mi njàppam da doon raxas ay tànkam kan la massa daan def bu masaan sol ay bat la daan massa ci kawam kon raxas leen tànk yi ba ci conc yi mbokk lii mooy farate ci njàpp amma nag sunna moo ñu jàngal ne bala ngaa jàpp te ka raxas say loxo ba ci montre fi ngay takk montre trois fois galax ndikul ñetti yoon sarax ndikul ñetti yoon ba ngay massa sa bopp massa waaleel say nopp mi ngi noonu sunna moo ñu jàngal ni ah bu la neexee nga raxas kanam bi ñaari yoon raxas ko ñetti yoon mooy la gën loxo yi bu la neexee raxas ko ñaari yoon raxas ko ñetti yoon mooy la gën donte ne lay farata mooy benn raxas loolu la alquran wax amma sunna mu ñu jàngal loolu lépp loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi nag mu ne su ngeen àndeeg janaba fattaharu fattaharu yàlla waxul loxo tànk fattaharu mooy yaram bi yépp raxas leen te loolu da ngay dégg ku naan mënumaa sangu farata déedéet bokk julli mënumaa sangu néew déedéet bokk julli sang farata ak sangu néew ñoo yem jëlal yaram bi yépp nga raxas ko sang ba baax na foo mën a commencé baax na léegi nag lan mooy janaba heure bu mënu yi génnee ci yow yaa nga ak janaba heure bu góor ak jigéen àndee ci sëy doonte ne benn ndox génnul ci ñoom ànd nañu ak janaba képp koo xamee ni nii da ngaa fi doon gént am lu génn ci yow ci man yo da ngay ànd ak janaba yow soxna si nga xam ne sa règle dafa jeex yaa ngi ak janaba doo mën a julli ci sangoo tey dara ci wasinam dafa jeex yaa ngi janaba doo mën a julli ca sanguwoo su dee da ngeen a ànd ak janaba raxas leen seen yaram yépp mooy fattaharu borom bi nag ne su dee da ngeen a feebar mënu leen jëfandikoo ndox mi wala da ngeen di tukki amu leen ndox wala li ngeen am ak as néew da ngeen ko réserver pour naan suñu borom subhanahu wa taala ne bu dee kenn ci yéen daa mel noonu wala nga jóge ca douche war a jàpp wala nga ànd ak soxna si ci lal war a sangu farata te ndox amu fi muy benn wala amoo noo ko mën a jëfandikoo su boobaa tiim leen tiim leen ngeen julli lu ñuy tiimee mooy sang yi sang yi mooy lan la ëpp ci borom xam-xam yi di jumhurul ulama mooy lépp lu cosaanoog suuf xeer laag béton laag doj laag ban laag lépp loo xam ne dafa cosaanoog suuf loolu la ñuy tuddee sang yi loolu te am nañu ca taral ne beeñ kese lañuy wax waaye la lépp lu cosaan ak suuf mënees na caa tiim xeer yu ñuul yi ngeen gis ak lu mu mën a doon su ko defee borom bi subhanahu wa taala mu ne na doon sayid bu teey boo xam ne sabe tuuru wu ca su boobaa borom bi ne masaalin seeni loxo masaalin seen kanam ak seen loxo te mooy da ngay jël say loxo teg ci kaw suuf sa wala xeer ba wax bismillah masa sa kanam la nga waroon a jàpp massa say loxo la gën a ëpp te kal mooy yaa ngi yem fi ñuy takk moom am na nag yenn hadis yoo xam ne borom xam-xam wéeral nañu ko yu ko yóbbu ba ca conco la su ko defee xamal ne booy tiim nga massa ba sa mont tiim ba baax na soo gisee kuy massa ba conco mit nga bañ koo ayibal loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax ñaareel bi tamit xamal ne la gën a sax ci tiim te it moo dëppoog téere bi yàlla bi mooy kuy tiim kanamam lay jëkk a masa avant muy masa ay loxoom ngi noonu man ngaa gis kuy masa loxoom avant muy masa kanamam waaye la gën a ëpp tegtal te gën a wér ci téere yi Buxaari moom la so solo téere boo xam ne ni kitaabu tayammum al wajh wal ka- wal kaffayn loolu la yàlla wax ci téereem wujuhakum wa aydiyakum loolu kon mooy la nga xam ne insha allah mooy la nga xam ne mooy la gën a wér borom boobu subhanahu wa taala nag ne man bëgguma defal leen ci diina ji benn xat-xat te ndokk mi ngi noonu yàlla bëgg lu ñu xat-xat bu jàpp jotee jàpp leen bu sangu jotee sangu leen amu leen lu ngeen jàpp lu ngeen sangoo tiim leen ñun rek ñoo ko am mboolem diine yi mas a jaar amuñu tiim imma ñu jàpp wala ñu sangu doog a mën a jaamu yàlla ñun nag heure bu waxtu jotee mënuñoo jàpp mënuñoo sangu oo mu ñu luñ jàpp amuñu luñ sangoo bu ñuy tiimee suñu julli baax na loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom bii mu ne dama bëgg matal samay xéewal ci yéen te na am matal na ko ci ñun defal nañu lum ñu defalul ci benn diine ñu ngi noonu te it mbokk njàpp ni ma la ko waxee xéewal la ki gën a propre ci kaw suuf mooy jullit mbokk jullit rek mooy jàpp lu mu néew néew trois fois par jour au minimum xanaa ci jàppal fajar balaa tisbaar jàppam dana toj ah suñ jaaw nga jàppal tisbaar xanaa yu tisbaar balaa géey jàpp mi dana toj trois fois par jour njàpp mu ne nga bëgg caa raxas sa loxo ñetti yoon égal neuf fois nga raxas ko say loxo par jour gars yi mboolem feebar yi wallaate lu ko tubaab lu ko médecin yi di tudde la maladie des mains santes Ebola bi jaaroon na ci corona jaar na ci lan ngeen di gis raxasu leen ah utiliser leen ay nangam am naa lu musulman yàlla da koo sant muy raxasu loo xam ne nii ay yoon par jour sa bakkan bii ngay sarax ndiku bactéries yu ci bari bari bari yi te doon accumulé wu da koy da koy dégagé ba jullit yaay ki gën a set yaay raxas sa gémmiñ gi lum bon bon neuf fois par jour mbokk ndax ah ni ñu naan dañoo tubaab yi dañuy def loolu la wallahi kon ki gën a set ci kaw suuf muy am jullit moo tax borom bi ne dama leen bëgg a laabal de un mottali samay xéewal ci yéen bokk na ci it benn étude boo xam ne gars yi dañ ne ni ngay jàppe toujours di bari di raxas sa kanam di bari di raxas say loxo di bari di raxas say tànk loolu massage cardiaque la dafay am jeexital xattaa ci sa cardiaque ci contact boobu ngay am ak cër yi di ko raxas ay yoon par jour loolu massage la kon xéewal gi yàlla def ci jàpp xéewal gi yàlla def ci julli yàlla rek moo ko xam mu ne nag damaa bëgg mottali samay xéewal ci yéen ngir yéen ngeen doon ñuy sant ay yow jullit santal yàlla nee nag waxtu julli jotee demal jàpp wala nga sangu amoo loo jàpp amoo loo sangu tiimal nga julli yàlla may ne la ko mayu ko ñu jëkk ne kon fexeel ba bul faat julli bul faat julli mukk ngiree om oma ngantu ndox wala oma ngantu nangam nangam la wallahi lii la suñu borom sàkku ci ñun ñu ngi naan borom bii nga xam ne moo ñu sant ñu sant ko yàlla nañu yàlla jàppale bañ koy sant fu ñu mën a toll lépp lu mu xéewal ci ñun yàlla na yàlla barkeel ko te wërsëgal ñu delloo ko ci ngërëmam yàlla may ñu aafiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain